salaamaaleykum sénégalais yi sama mbokk maa ngi leen nuyu yéen ñëpp tey introduction ci président Ousmane Sonko laay ñëw lan moo tax mu raw politiciens yëpp Ousmane soo ko leen mel ne xale di fo di ay xale politiciens yi yëpp Ousmane Sonko comme ay xale la yor am li tax yàlla ku dugg ci 18 mu fooye la yàlla kenn du dugg ci ay 18 boo amee 40 jours si sa biiru yaay. la yàlla di yónni malaaka bi ni ko demal ci diw defal ma ko góor walla jigéen tel jour lay juddu fii lay jaar fii lay jaar fii lay jaar ba jour bi muy génn àdduna sab di yàlla tracé na sa destin Ousmane Sonko li mu rawee gars yi xam nga lan la Ousmane Sonko il suit son chemin il suit son destin dafa bàyyi destin bi jiitu ko mu topp ko xam ne fu mu jaar yoon bu mu jaar rek yàllaa ka tracé noonu mais yeneen politiciens yi li tax ñuy dugg ci kàmba gi ba suulu ba ñoom ñëpp ñu ngi retraite tout le monde il veut devancer leur destin dañuy jiitu seen destin bëgg seen destin topp leen ñoom ñooy tracé seen vie ñoom non c'est comme ça on va faire il va pas être ça il va faire te seen destin nekk seen ginnaaw bu ñu jaaree nii destin bi topp yoonam ñu bëgg a retourner topp ko soo ko ne dafa teel a topp destin fu ko bi orienté mu topp ko c'est ça la adduna. danga nga koy xam da ngay xam àdduna ba pare soog a song àdduna des fois politiciens yu bëri dama leen di xool yërëm leen quoi ma ni billaay dañu xamul faalu li ma yurit ki ni lu ma neex laay def te kenn mënu ci dara su sun ko dafa xam li yàlla bind nan lay demee nan la ko yàlla waxee lay demee mu topp ci fu yàlla jaaral rek mu ne nii la ko yàlla bëggee di xeex di suivre destin ñeneen ñi ni non non destin bi ñun ñoo lay diriger. ñu ko diriger ñëpp destin bi seen destin yóbbu na leen ci si yi lan dem parce que ñi ma fi gis nii nan liggéey loo xamante ni leen fi jëlee du yomb ndax population bi leen fi dul jëlee yéen ñëpp jàppale ni yéen a ngi retraite loolu introduction la rek gars yi pour ñu bàyyi ci xel bu baax xam ne kenn du xeex ak sa destin voilà deuxième bi mooy yenn sénégalais yi nekk ci département commune yëpp laa wax commune yëpp tout le monde prenez votre responsabilité seen maire yi ñu fal maire commune wala maire département euh, maire maire commune wala maire ville yéen a leen votel yéen leen fal te commune bi seen commune la yéen fa dëkk-dëkk ci koñ yi jël leen seen responsabilité maire bu fa campagne woon 2021 campagne wër ba tas wax leen wax leen xool leen li mu def ak li mu deful li mu deful def leen ay délégation ay regroupement dem ba ca mairie ba ni ko yaa ñu waxoon léeg-léeg lii te yaa ngi ci deux ans de trois ans la dese exemple ma jël ko ci man te li may wax ci man li may wax nii li tax ma kay wax yéen ñëpp la concerné yéen ñëpp tout le monde soññ naa leen te dama bëgg ngeen def ko gars yi ni naa la politique boobu amoon fi amatu fii de jeex na de on va contrôler et gérer notre destin suivre notre destin ba pare gérer notre po notre notre Sénégal dafa am ñenn ñu may citer seen tour dama leen di yóbbante ci monsieur le maire biram Souleye Diop biram Souleye Diop man moo ma dugal Pastef moo ma dugal ci politique mooy maire commune zone nord dafa gagné mairie bi liggéeyam moo tax ba mu bëggee nekk député laaj mu ñëw Thiès yëpp voté ko mu gagné deux ans yi bu liggéeyul woon dara présidentielle yi kenn du ko votel ba mu ba Thiès nord ba mu nekk ñuy gañewaat score bu rëy parce que mi ngi liggéey xam naa ne mi ngi liggéey mais dafa am leen lu ñu waxoon te dama ci ànd man ànd ak ñoom wax man jaxaaw laa dëkk jaxaaw dafa am lu ñu leen waxoon te man bëgguma bés jot ma dugg Cees di dox sama koñ ñu may xool naan waaye xoolal ñii ñoo ñu waxoon lii élection municipale mais xoolal dara doxuma ci loolu te mayuma ko kenn ci kër àdduna Birame Souleye Diop dafa am benn terrain bu jaxaaw am terrain bu mag ñu joxoon ko jaxaaw mais terrain bi dafa yàgg yàgg yàgg ba am benn promoteur bu ko commencé woon jël commencé dagg yenn parti yi def ko ay terrain ma woowaa jaxaw laaj leen këyitu terrain bi laa soxla parce que projet mairie bi dañ fa war a defal benn complexe bu mag ñu ñu orienté ma ci ma wax ak euh, famille Diop famille Pape Boo Jaxaw ñu ni ma waxal ak président bi Dani Boy ma wax ak Dany booy mu jox ma plan kër gi ma jël plan kër gi woo biram Souleye Diop jox ko ko mu vérifier ko impôt domaine ni ma sëy terrain bi est-ce que xam nga am na promoteur bu nu jox moitié lu bëri mi ngi koy dagg dagg na ko ba ngay commencé waaj a jaay ma interpellé waa Jaxaaw ni leen terrain bi bu ngeen ci jugul dinañ ko jaay gars yi jug xoolaat këyit ji dem wax ak waa waa ji ni non man xawma waa ji retiré wu ñu récupéré waat hectare yooyu yëpp teeku Birame Souleye joué ci rôle bu rëy ñu ngi koy remercier monsieur le maire chapeau maa jël kayit di jox ko ko moom mu regle ko ba terrain bi delluwaat ci loxo jaxaaw ndax jaxaaw laa dëkk doomu jaxaaw laa peut-être information bi ñu bëri xamuñu ko mais problème bi mooy terrain bi dañ ko war a def complexe pa bu ba jaxaaw loolu la su lay waxoon dafa am ñu may wax te dama bëgg lii ñu def ko le plus rapidement possible te list bi may wax nii ngeen bind ma ci suuf man ci suuf bu leen ma def ci kaw ci suuf bu ngeen demee ngeen di zëy Dany Boy président Dia bi yor kayitu kër gi kayitu terre terrain ba Dany Boy kayit yi ci loxoom la ne conseil la ci mairie ba jaxaaw la ne ak ñaaña jeeju nekk mairie ville lay liggéeyee mais moom ci délégation bi laa bëgg mu boq ak ak Sidiki Traoré porte parole presque mairie ba foofu ak Racky Gueye maam Ali Gueye sama ndaanaan ak Racky sama sœur Younous Diop doom Pape Badiaw ak Ndaxte Diop ak Bilal bi naan comédien la bi doon sensibiliser ak président jaxaaw bu bees ak entraîneur jaxaaw ak képp ku nekk jaxaaw def leen délégation yéen ñëpp ngeen jubbal mairie zone nord woo Birame Souleye Diop wut ak moom rendez-vous dem toog ak moom ngeen ni ko carrément terrain jaxaaw boobu nga ni ngay def complexe pas bu ba jaxaaw mu teg lu leer nañ seen loxo parce que gouvernement bu bees bii ñuy def xam ngeen ni dina ci dugg moom ala kuli xaal dina fa nekk minist balaa muy bàyyi mairie bi ñuy voté pour jox tegaat ko ci loxo keneen dem leen ci Birame Souleye Diop mu wax leen lu leer teg ko seen loxo pour terrain boobu complexe Papa Boy Diakhao bi lan ak lan tam lu mu leen di wax na leer naka bind ci kayit téye parce que maa ngi ñëw te ñun ñëpp bu ñu ñëwee lu mu wax noonu ay affaire wax dem sa yoon amatul Sénégal de li may wax ça concerne tout la population sénégalaise mairie commune ak département bu ngeen mëntati nekk il faut mettre les sur les i ci maire yi ci maire yi balaa maa dee maire yi di ñu bëgg rey di wër di defar làmp naa defar naa làmp làmp fii chef de quartier ñooy defar lamp yi bu ma génnoon léegi gis porte bi coupé maay dugg sama kër man étranger tak tak tak composé fiwaa fiwaa électricité ak ndox la ñu boole woo leen ni leen sama buntu ko joxe adresse lamp bi daa coupé ñoom ñu ñëw man citoyen normal mais maire yi dañuy defar porte sax génn ci mbedd bi wii télé wër leen wii xoolal lamp bi ma defar mais non même pas honte lii sax dem leen wuti ji ay supermarché yu mag ay ngandi mool marché yooyu ngeen indi ko seeni commune marché yi ngeen tabax leen en hauteur yokk marché yi yooyu ngeen yi bàkkoo mais ay làmp ñu defar loolu laa bëggoon wax te maire yi ma fi sit keroog Thiès ni naa Babacar Diop maire ville bi Mamadou jiite maire zone est Ousmane Diagne maire zone ouest ak monsieur Birame Souleye Diop ak conseil départemental Siré Dia nga xamante ne kooku moom kaña la moo yàq poste ba mu yàqu ma ni mbuurkat forêt classée boobu ñu caxat-caxatee dama bëgg ngeen taxaw ci nguur gu bees gi ñëw récupéré waat ko teg ko ci loxo ceesuwaay yi te li may wax ma ni ça concerne tout la Sénégal ku nekk sa ville sa quartier ku fa nekk di def ay désordre génn leen gen dénoncé ko caxat-caxat yi dafa jeex Sénégal c'est fini bu leen ko nangooti posé naa leen question lan moo tax defoo leen conférence de presse digg Thiès Thiès waa yëpp di leen dégg ngeen ni la forêt forêt classée bii bu nekk mbuurkat nguur gee kay caxat caxatee di ko dagg di jaay te war fa def usine wala entreprise wala société wala def ko nouvelle ville kër yi sax ñu koy joxe pour après gars yi di fay. li may wax ni ça concerne tout le Sénégal exemple laay joxe parce que sama commune la xewee ak sama ville loolu laa leen bëggoon wax tey yi. jug leen ci taxaw leen ci réconciliation nationale ak dégg naa président Bassirou Diomaye Faye wax ko mais man deux mille vingt cinq avril deux mille vingt cinq bi nanu def programme préparé def semaine nationale de la jeunesse et de la culture semaine nationale de la jeunesse et de la culture nan lañ koy doxalee yooyu naa ko wax loolu mooy réconciliation nationale bi gën a pour la jeunesse di fête fête de la jeunesse te loolu dinañ ci ñëwaat. tas leen message bi yéen ñi ne ci commune yëpp commencé na jël seen responsabilité à présent mairie lay commencé commencé jëm kaw